yor ci ay sàmm vraiment di sàmm di ki te mbër yi moom ñëpp xam nañ ni ñu nekke <laughs> xëdd xam xëdd tëdd reer ndogu la ñuy def <laughs> waaw loolu la ñuy def comme ni ko euh, kii di waxe Alboury maa ngi lay nuyu baax di la siyaar. jëli maa lay fay ginnaaw bu ñu sant yàlla julli suñu bi sant suñu ñaari waajur bu baax sant sama sëriñ sëriñ Moussa Nawel di sant njabootu sëñ Moussa Nawel yëpp waaw di sant tamit ñoom sëñ Abo sëñ Moussa sëñ Xaadim ñëpp maa bàyyiwuma kenn di sant sama papa bu baax sama yaay sama mag yi ku si mel ne Aliou Ndiaye nekk France maa ngi sant bu baax papi Ismaïla ñoom landing gaa yëpp sama xarit yi may àndal ah, ku ci mel ni waa amoo quatre cent cinquante yëpp AKD ñëpp képp kuy bëgg fi sa bala maa lay sant bu baax. Mhm. da nga doon waajal combat euh, sa diggante ak Gora Sock ñu dem ba ni combat bi daanaka ay fan ci des sa adversaire am blessure bërewul depuis boobu ba léegi ci lan nga nekk. waaw boobu ba léegi maa ngi si ah wax dëgg yàlla préparé nañ combat bu mu des trois jours xaw ma deux jours soo ay ne daa blessé waaw mais teew tamit bàyyi ñu lu ñu war yëpp ñu ngi koy def tamit. Mhm. sa téléphone woo ko. Ah. lan moo tax nga woo mais lamb moo ñu boole rek. góor soog du ma ennemi du sama ennemi. làmb moo ñu boole rek bu jeexee après jeex nañu ko naan nekkaat suñu jàmm mais teewul du ñoo nekk si contrat dañ koy neexal ba mu neex. après bu jeexee rek jeex na ñu nekkaat ci lu ñu nekkaatoon. làmb du dara làmb benn cinq mille wala dix mille mu jeex waruñu si nekk di xiiroog ngaayoo yooyu daal. blessure Gora Sock est-ce que defoo ci erreur de communication bu gën a yokk tax combat bi yàqu. comme nan. ñu bari nee nañ da def erreur de communication ci làmb parce que yaa doon toog sax instant naan ko wéroo da ngaa gaañu sa tànk bi fii gaañu fa laa lay dóor dinaa la fa gaañ yu mel noonu est-ce que loolu taxul mu gën a xam ne kii li ma doon nëbb am na mënatuma ko sooxee dem bëre ji waale ko est dama doon dama doon soobul rek dama bëggoon mu ñëw bëri rek. dama bëggoon mu ñëw bëri rek mais dama doon soobul rek. dama bëggoon mu ñëw bëri rek. remplir mënoon na tax mu ñëw parce que. Ah. yow xam nga ni dafa blessé. mais loolu mënoon na mu ñëw bëri. loolu mu ñëw bëri mais tamit ku gaañu daal sa waay man daal na ma quoi du fi nekk di ko wax di ko ŋàññoo di ko wax dara lu ñaaw. waaw maa ngi koy xaar ba mu tane bu tane mu ñëw ñu bëri. liñ di wax ni mooy dafa daw. Gora Sock dafa daw te yow dafa daw boobu déggoon nga ko sa diggante ak fils de général Malika. góobu ma ne dafa daw dafa gaañu am ku gaañu blessure mënoo koo bëre waale. maanaam bi nga bëree bi ngay bëree général Malika bi nga gaañoo da ne da ngaa daw. wax nañ ko mais dañoo comprendre mais bu la dalee ñeneen doo ko xam. wa mais dal na ma mais teew du ma ko wax dara lu ñaaw du ma ko ŋàññi du ko wax dara daa war a gaañ a gaañu na. waaw dañ mu am tan bu amee tan mu ñëw ñu bëre. promoteur bi kañ la leen fas yéene jàppal date ngeen bëre ay mois août la wax de. dégg naa le xaw ma le quatorze août man wax naa li ma wax leer man date moom mu nga jàpp arrangé wu ma pour ma bëri si voilà. arrangé wu man na jàpp ci juillet bi wala juin ñu jàpp ko. am ah mais ñu xool rek moom date bi xam nga date bi mu ñu bëri le vingt mars moomu ko woon. ñoom Tafa Gueye ñoo ko moom dafa dem wax ak ñoom ñu may ko dat na jéem a xool rek lu mu def. mu dem ñaani waat dat. waaw mu ñaan dat. ñu jox ko la 14 août. non la 14 dafa sori. ndax mënoo préparer sa combat dañu trois jours gaañu na ko bëgg a toogaat cinq mois di préparer waat dañu waxante dëgg dafa métti cinq mois dafa métti cinq mois préparer nga sa combat ba bëre ba daan ba xooli wàll leneen cinq mois daa métti. mais cas force majeure dafa am mooy sa adversaire dafa blessé ñu dem ñaani date bind CNG. CNG jox leen le quatorze août. yow boo nee doo bëree le quatorze août est que du jur jeexi jaaxase. loolu moom wax dëgg yàlla naa ko ko le quatorze moom nee naa ko moom loolu moom arrangé wu ma sax en plus août ci nawet bi lay tombeel mun nga préparer sa lamb ba ci jour mu taw bu tawee looy defaat da ngay reporté waat combat bi. bu tawee. déedéet bu taw taw yoonam. arène nationale be mun naa dékk ndox mu ne. non non mais bu tawee yéen ñi yéen doo leen filmé bu xam nga doo leen filmé. ay mbuus lañ ciy def. loolu mbuus. au niveau boo demee équipe yi dañuy football te teewul day taw ñuy ñuy filmé. bokkul ak fii euh, au niveau nga wax fii nekk au niveau. fii Sénégal la nga naan au niveau. du sax benn loolu laa bëgg a xam foofu nekkul sax benn. waaw nawet moom nawet kenn du ci bëre. voilà nawet moom kenn du ci bëre. Hmm. Hmm. mais actuellement dañ ne Balla Gaye 2 bu bëree la set dimanche bi ci topp ci ngay bëree. Balla Gaye 2 fu mu mën a bëree nawet Fils de Balla wor naa mën a bëree nawet. mais moom moo mais man man moom pare moo pour bëriwut Balla Gaye wax. est a daw combat. taw lu may daw. bëriwul pare moo pour bëriwut. waaw ah, am naa ci droit man lu ma arrangé laay xool. may xool lu ma ma def ko man du ma xool moom lu ko arrangé wala waa CNG loolu la ah, man lu ma arrangé sama bés la. sama bés la bés tànk Fils de dañuy waxtaan àdduna ñoo ñuy seetaan. Soug ñoo ko moom. promoteur bi jël xaalisam jox leen ko nag moom lan la ci am. waaw moom mais ñun ñun ñun ñaar ñun ñaar a tax ñun ñaar ñu moom bés bi maa ngi góor a soog moom bés bi bés bi suñu bés la. déet géew gi seen bis la. askan wi ñëw di seetaan si. bés bi suñu bés la man moom maa ngi góor a moom bés loolu laa bëgg mu xam nga man damay xool lu ma arrangé ma def ko lu ma xool lu ma arrangé lu ma ko def am naa ci droit. nañu waxante dëgg jàpp 14 août bi waxtaanoo leen ci yéen ñaar mu ci ba léegi ba léegi moo ko moo ko dana ma daal ut laa ko bëgg a jàpp waaw ut la mu wax la wax boo jàpp mais waxuma la 14 waxuma la 7 loolu daal la mu wax dana ma daal ut laa ko bëgg a jàpp ma waxtaan si ñu waxtaan ñu ne ma ut baaxul am na ñu ma si waxal ñu ne ma ut bul bëri ut voilà te ñooñu moom dama teg seen wax tamit waaw ku ne da nga am kilifa waaw. mais boo bëriwul ut promoteur bi jàpp dot mois d' août ba ba ba combat bi lépp war ci mën a am bëri woo xam nga lan moo la ci mën a fekk. man lan moo ci mën a fekk. sa ménageur war na laa wax teg si li mu wax ci loolu parce que mbër mi bu fekkee dafa am cas force majeure mbër bi dafa blessé bu yob guérison am bu ko yóbboo ci trois mois yooyu mun nañ ko jàppal dat mu bëre. guérison 21 jours la am war naa tane 21 jours saa waay moom mu ngi entraîné. non bu amee mbër mi mo war a yóbbu guérison am au niveau du CNG. mais moom war góor a sax mais wax dëgg yàlla 21 jours yi mën na 21 jours la amoon 21 jours yi mën na. médical 21 jours est que jote na ak nga wér c'est-à-dire mun na 21 jours yi mun na jeex te wérul. wér na moom bay entraîné ndax ku wérul doo entraîné. non dafa xam ne ay nit yu dëkk parcelle ñoom mooy wax ñu ngi entraîné ñu ngi dem salle di entraîné ah dañoo wax ku wérul tamit doo entraîné jili. Hmm. nañ bàyyi suñu bopp nax tamit. yow woo nga jam wala nga woo sa manager wax ko ni. mois de jam nax bu ma woowee daam lu mu wax ay waxu teggin lu ma waxal lu ma ci jaaraat. si yaa ngi ko ma woo sa non ay waxu tegginu la mu wax dama ko waxee am na lu mu wax sama xol tàng na si moo sama manager wax ko ko. man ko nag yow yaa ma engagé wax naa la lii ak lii laay lii du ko def sama manager woo naa ko lu leer man ko kii combat li mu bëgg a jàpp daal bi arrangé ma te du ma ko bëre. manager bi mu ne waa baax na après dinaa wax ak moom. Matar Ndiaye mooy si boppam mooy sa manager moom laa woo ba ma ko wooyee noonu jam mu may wax ay waxu dof ak yooyu moom laa woo ci boppam damaa ko. mooy jam bi ko wooyee lan ko wax ak lu mu ma wax non loolu du waxu fii après loolu après la am na lu ma wax te lu ma waxee loolu man gis naa sama bopp ma ne ko encore ah, noonu la ma ne ko waa baax na. ma woo Matar Ndiaye ma ne ko Matar Ndiaye woo naa jam muy wax ay waxu dof ak yooyu lii ak lii laay def. moom mun lu ma xool lu ma arrangé wala xool boppam lu ko man lu ma arrangé laay xool ndax may bëri bés man lu ma arrangé laay xool wax naa ko ko moom munu leer déggaatuma ci kenn nag mais maa ngi toog di déglu rek. léegi bu fekkee jam moom dafa toog ba parce que moom jam wax na ni da benn date la mooy le quatorze bu amul dañuy jëm ci coupe du monde. te coupe du monde bi bu ñëwee moom du jël risque di tëggal benn promoteur nee naa ko est-ce que Fils de Balla bëggul ko samedi wala lundi wala mercredi. man samedi sax bëgg man sam samedi sax bëgg naa na xool samedi mu dëgg ko. très parce que yow. man man bañu ma bëre mais yu mu bëgg bu ah, impose yooyu moo daal yow laa bëgg du bëre mais man samedi sax bëgg naa. léegi yow bëgg nga samedi. mais est-ce que xaalis bi ñu leen fay yéen samedi bu ngeen ko tëggee promoteur bi dina ci gis boppam yow yaa ngi défendre sa intérêt mais défendre intérêt promoteur bi. Gora Sock Fils de Balla foo teg tëgg nit ñi dañuy ñëw. lamb ji amul boo ko tëggoon lundi sax wala mardi sax jour ouvrable nit ñi dañuy ñëw seetaan si. dañu waxoon dëgg. non mais bi war a ñëw lamb du euh, amateurs yi dañuy liggéey. waaye ku wàcc da ngay ñëw lamb ji de mu vingt vingt vingt heures la jëm. toujours ku la wax ñii toujours Fils de Balla gënalu leen ci làmb ji ñuy dugg si Fils de Balla ñuy jaagar jaagare Fils de Balla loo bàyyi sa yéen. ku ñëw stade li nga bëgg a gis di gis jëlee. làmb jooju ku bu ñëw stade lépp loo bëgg gis ci làmb di nga gis. kon amul ay mercredi ay mar rek bu ko tëggee samedi baax na bu ko tëggee dimanche baax na ci moom lay dépendre man bañ man pare naa pour bëre. man bañu ma bëri de man déggul kenn teewul mais bis bu mu ko bëgg jàpp mois bi mu ko bëgg a mun a xaar loolu. yow bi nga amee blessure. Ah. sa diggante ak général Malika ci ban moment nga yóbbu guérison bi ban moment lañ la jàppal dat ci un mois lañ ma jàppal dat bu wér. mënul nekk barki Serigne Touba Mbacke laayal Matar Ndiaye. ba may woo dama moo doon tàq ci kaw mu ne ko du ma bëri bés boobu moo ñoo woo ñoom Lamine Golo ñoom Lamine Golo ñoom ñëpp woo ñëwoon ñu ne ma bëreel le octobre man damaa wóor presque wér même pas au moins ñu jàppal ma date ma bëri. nga sa guérison. damaa yóbbu sama guérison. fekk na promoteur bi dafa amoon date wala dafa dem. dugal man xaw ma amoon date man damaa xëy rek ñu woo ma bañ ma woo sax ay nelaw laa ndax damaa yeewu gis sama téléphone sonné ñu woo ma Mara Marane Ndiaye woo ma ne ma le 24 ngay bëri ma ne ko loolu mooy la si la coupé moo woo promoteur bi ma ne ko yow booy jàpp laaj mu ne ma non damaa jàpp date bu gaaw dama doon bañ bañ date bi rëcc ma ma ah, wax ñoom Lamine Gola ñoom Lamine Gola dama bëri ci au moins ma jàppal date ma bëre ah timit ma xam ne dëgg mais ku gaañu gaañ nga bëgg toog trois mois di ko xaaraat man bu ma ci au moins lañ ma jàppal date ma bëre. non mais dama bëgg nga xam ni cest à gaañu gaañu bi taxul ñu ñu gën a concentré parce que Gora Sock yaakaar naa ni moment bi nga bëgg a bëre moom it boobu la bëgg a bëre mais est-ce que yéen ñaar jotul yéen ñett ñi nga xamante ne yéen a siq làmb ji ngeen jéem a xool nan ngeen ci mën a defee parce que promoteur bu jël xaalisam jox la jël xaalisam jox sa nawle dugal ci xaalisam am yaakaar bu mu ci amoon dem ba bis ba làmb ja amut est-ce que gënul metti ci moom ka yéen. mais moom góor so xamul na ne moom après koor lay bëre. xamoon na ko moom xam na ko. lu tax ko dama koo dégg. moom ci boppam moom xam na ne après koor lay yor te moom buñ ko laajee mën na ko promoteur bi mën ko après ngay bëre ci boppam barki Serigne Touba kon yàlla bu ma daanati mbër moom ci boppam moo ne moom après koor la te promoteur moo ne ko après xaw ma na ñoom ñaar dañoo déggante xaw ma dañoo kumbal seen kumbal xaw ma nu demee mais ci boppam moom moo toog ne après koor lay bëre te boo weede li ñuy wax mun naa la tegal firnde woon lépp nga déglu ko. kon su ma déggee wax ji dafa mel ni promoteur bi dafa faral dafa faral góor a. xaw ma daa far xaw ma daa far xaw ma far ma xaw ma mais ñoom ñaar seen kàddu ñoom ñoo ko déggoo. te làmb ji lañ ko bëggoon yóbbu man jam moom ma jàppale dama xool ñu ne après koor laa bëggoon bët mais bu mu jàppee dara mënu ma moo du ma dara. Hmm. avant moo jàpp date bi dama ne ko jëm yóbbu ma après koor ndax nga mën a am gën am temps pour combat bi gën am coow yooyu. mu dem jàpp date le 20 mars ma ne ko garaw nañ ko bëre ndax góor soog da doon wax après koor du bëre après du bëre après koor. avant koor du ko bëre. avant bañ ba ñuy doog a taxawal ji loolu la waxoon mu ne du bëre avant koor day bëre balaa ño koor lay bëre mu demaat ba ci biir ne après koor lay bëre. gaañu góor a soog bi prétexte la mais du du gaañu gaañu. xaw ma prétexte la xaw ma parce que yow boo waxee ni moom nee na du bëre kon kon. man fi moom yi gaañu fekke wu ko xaw ma ndax gaañu na mais li ma dégg ci boppam moom da ne après koor lay bëre te promoteur bi moo ne ko après koor ngay bëre boo weedee li ma wax kay mun naa la ko won hmm. barki yàlla. ki nan mun naa la ko woon bàyyi ba nga pare. doo ko doo doo ko woon sama gars non munu ma ko woon fii munu ma du ma ko bokk sama bokk mais bu ñu paree naa la wanal lii ak lii la nee na moom après koo lay bureel tamit la xanaa lu nga ne dañoo bëgg a man dañ maa ñoom bu ñu bëggee ñu ngi may nax ñu ngi nax seen bopp ñoo teg seen i dil góor sax parewul ñu dem waajal ko pour mu gën a parewaat góor sax lu ñëwee saa bu ñëwee fekk lu gën a métti barki Serigne Touba saa bu ñëwee fekk fi lu gën a man xale laa loolu laa mu def ko si boppam. moo tax ñu nekk laq mu naan daa gaaño ay gaañoo garaawul amul benn problème mais heure bu paree na ñëw ñu bëre. ndaanaan la waaw ba ci ndaanaan man man ñi ma bëre bëre góor soog toll waaye man ma bëre ay ndaanaan nga naan man ndaanaan. ndaanaan yu bëri bëri naa. déggoo li ma la wax man ay. yow c'est xam nga la mooy problème man ay xale laa daan. man sama carrière sama lim sama palmarès amul benn mag boo ciy lim mais palmarès bu ay santaan ñi nga bokk ak ay jam ci rek am bu bëree balaa ma bëreel yàlla xam man ay xale yu tàng laa bëreel sama. tàng na waaw mais Tyson 2 tamit Tyson 2 ku ko daan gaañ na moo ko daan. moo ko daan ci ci ci seen ci ci ci kayit. daan ko ci kayit da ko daan ci lamb ci daan ko ci kayit. bi ñuy génn góor a sax non non mais arbitre yi ñoo jaaxle rek mais gis na ma njëme seen leer la bañ demee CNG leer na man sama palmarès ay xale rek laa daan booy yi gën a tàng maa leen daan. Hmm. bu xam nga sama palmarès lim ko kañ wala xam nga. kay xaw xaw ma ko. naa la koy limal. mbay guy gi. ñenn. waaw Bada Dione. Ah. Junior. ñenn. Bulan Sarr taqe. Ah. waaw Ouz maa ko njëkk a daan. Jàmbaar mi waaw. Ah. Eh, gin bu yoof. ñenn maa ko daan. loolu rek palmarès la. Ah, Oninga. bu parcelle bu parcelle. maa ko daan général Malika. ay ñoom booy seer ak ñeneen ñi man ay champion rek laa bëreel ay booy rek laa bëreel sama carrière amul benn mag bu ma bëreel. ñi nga daan nga leen ba pare léegi dem bi daa mel ni dafa yéex daa mel ni demu kàkkatar ngay dem. non sax daanaka corona yi moo ñu téewoon ak suñu combat bi général daanaka toog nañ trois ans bëriw ñu. corona bi tamit moo ñuy moo ñu yàqal mais teewul tamit sama benn morom raw ma de. Hmm. non ñi nga débuté noonu ci kenn amul kenn ku ma si amul kenn ku ma si raw ñi ma débuté si làmb moom kenn raw ma si moom. daanaka corona bi moo ñor tënkoon rek toog daanaka sama combat général trois ans toog nañ trois ans bëréw ñu ko. jotul tey nga jéem a lijjanti ay promoteur ñu jox la trois avance quatre avance comme ni ñu koy jëfee say morom mbër nga préparé wu bëre la bëre deux mois deux mois yi ci topp nga bëre yeneen deux mois yi. jël su ko gisoon jël. yow mi barki sëñ Ba ma su gisoon loolu jël trois ba quatre cinq su ma gisee damay lekk avancé. barki yàlla. par deux mois yi jot par deux xale laa mën naa koo bëri. par deux mois deux mois naa koo bëri. loolu nga ñu problème. Hmm. kañ promoteur promoteur lañ dul gisee mais bu ñu gisee promoteur moom moom bu ñu naan ko loolu moom amul benn problème dama koy engagé. ay xale lañ nekk làmb mooy suñu métier. amuñu leneen lu dul làmb. làmb mooy suñu métier. ak ak yar waaw nag yi nag yi dañ koy rek pour plaisir. tey bu ñu amee loo xam ne tamit mun taxaar mun nañ génnee jaay. këlam benn nag dóor ko ci ruq bi. boo pare après dabu jiwaat ko rek loolu rek mais nag yi plaisir moo tax ñu koy yar rek. Mhm. nag yi da ko jënd da ko gagné compétition. wala dama ko jënd nag yi jënd naa ko de ah. nag soixante quinze mille nag yi daal bi ci gën a tuuti rek bi ci gën a ndaw rek bee rek deux cent cinquante mille laa ko jëndee bi ci gën a ndaw. barki yàlla. bi si gën a ndaw rek laa wax bële bi si gën a ndaw bule benn deux cent cinquante mille laa ko jëndee. loo ci am. man dama koy téye rek ba ci kanam amul rek. est nga ci nag yi li nga ci bëgg ci xaalis bu dajaloo mën nga ko ci. waaw ndax rek ko mun lool ndax bu xaalis rek. doo ci am bénéfice yu. li nga ci am bénéfice sax mais du bëri yéen bëri daal sa xaalis mooy dajaloo rek sa xaalis moo si dajaloo loolu la rek mais am ak amour bi ñu si am tamit. Mhm. tey ku am problème mu nga ko ay ngénte wala mariage mu mun nga koo jaay. nga ko jaay ay nag. jam bu ñëwoon bëgg nag wala góor sax di nga ko jaay. bu ñëwee kañ bu bëggee moom mën naa koo jaay. dañ ko tegtal nag ni ko demal ci fils de mu jaay la nag. di nga jël sa bu ñëwee ma jaay. bu war a saraxe sa jour bu ñëwee ma jaay ko nag daan ko. bu leen nag bu xonk laa bëgg. dégg bu fi bëgg am naa bëgg am naa ko laa bu bëgg na bëgg rek. moom nee biir bëgg rek bu deful lang sax ma wàññil ko sax moom. Hmm. waaw ma wàññil ko. maa lay jaajëfal bu baax kontaan naa ci ruq li ma ñëwee yokk su fekk la. kontaan naa sa doo fekk bi. waaw ma loo fii laa nekk. tarki yàlla. <laughs> non mais sama waay nga nag sama waay nga maa ngi sant ñëpp ah, di sant. sama papa Aziz Ndiaye maa ngi koy sant bu baax aw ma fayam kooku sama lépp moom ak waa famem ñoom Khalil Soro Badou. baay Masata Ndiak ñun aw ma seen fay quoi ndax lu mu bés moom dañ ciy taxaw ak sama xarit Juma Ndiaye xam ne weeru koor gi yëpp fa ñu ndogoo moom moom mention spéciale quoi amuñu fayam Juma Ndiaye. ñu koy sant bu baax ak sama gaay yi may àndal ñëpp sama boy ñoom Matar Lam Moon mbake gaa yi ah bàyyiwuma kenn képp kuy bëggee fii sa baal maa sant bu baax a baax a baax waa diaspora bi tamit sama gaay yi ku ci mel ne ñoom Khalifa Thioub gaa yi bàyyiwuma kenn ah, sama mag bi nekk France. ñoom ñëpp maa ngi sant ay ñoom Toldo ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn ah gaa yëpp képp kuy bëggee Fils de rek di sant tamit Moussa Bokar Thiam maa koy sant bu baax maire Ourossogui ak ñoom Ibou ñoom Yoro ñëpp ah ñoom Youssou Ndoye maa ngi koy sant bu baax tamit mm, Ismaïla Bass ñoom ñëpp di bëggee tamit waa école Balla Gaye bu baax a baax di ñaan la booy fi am combat yëpp yàlla mayee ndam ak Balla Gaye 2 ñoom Lamine Golo Mbës ñëpp bàyyi ñu kenn ah. waaw di bëgg ñëpp ah tamit jaajëf. Ay, eh, pisa bala! Pisa bala! damaa la kaay sama gi rëcc nañ de. muy sama ndey. muy sama ndey. Eh, ah, waaw kaay ma waaw. Ah. waaw xel bu may xool rek. ah loolu la bu may xool rek. léegi bu may xool rek. waaw ah, daa wóor bi wóor. jërëjëf. jërëjëf mbokk yi dégg ngeen Fils ta Balla li mu jot a waxtaanee yëpp ci wàllu làmb ñu koy jaajëfal bu baax eh, di baalu àq ñëpp nag ci koor gi di leen baalu ak di ñaan yàlla suñu borom boolu ñu